Cheikh Oumar Sakho ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi nga bokk ci fédération expert ak conseil national employeur bu Sénégal euh, tey ñuy waajal benn rapport bi nga xam ne njiitu réew mi moo ko sàkku ci ministre des sports yéen ñu dégg leen ngeen ci euh, alerter lu ko waral lan mooy euh, lan moo ñuul ci soow mi. Mhm. mooy ñu def rapport. te duñu wax lépp président. lépp mooy lan. lu ci am lu ñu mooy lu xew ci lu xew ci tabaxu infrastructure sportive. lu ci xew. infrastructure sportive boo koy réaliser. Hmm. il faut que nga réaliser ko donc il faut nga def. il faut nga bind téere bu nga xam ne da wax ni infrastructure sportive bi laa bëgg réaliser il faut que mu correspondre ak norme FIFA yi. d'accord. boo defee loolu ba pare. bu ñu koy tabax norme da ngay fexe norme yooyu nga demandé. Mhm. ñu def ko ci biir stade bi. bu ñu ko deful nga lànk. d'accord mooy maîtrise d'œuvre contrôle maîtrise d'œuvre conception ak maîtrise d'œuvre contrôle des travaux. Mhm. loolu bu ñu ko deful ci stade bu dem. d'accord et stade. dafa nekk euh, ñoom sax xam nañu ko parce que ci ci ci dossier bi ñu ñu bi ñu leen proposé ils nous avaient demandé que bureau yi war a as bokk ci projet bi il faut que ñu musu réaliser stade parce que stade dafa bare ay domaine de compétence mm-hmm. stade am na tabax stade am na courant mm-hmm. stade am na am na am am na tali parce que fii oto yi di daw am na stade am na gazon mooy bon stade am na am na am na corps de métier loolu lépp boo ko préciser wu ci cahier de charge ak ni ñu ko war a defaree da ngay dem ci erreur te stade tam boo koy defaree da nga koy soumettre da nga koy da nga koy da nga koy def aux normes de la FIFA pour que ëllëg ak si biir FIFA ba yam ñoo ni ko non stade bi nekkul lor comme li ñu dal nii comme ça. d'accord et justement liñ fi lim yëpp dafa amul ci ñi gagné marché bi wala. non non xaw ma en hmm. ah. bu Demba Diop. bu waaw dégg musul dem musul musul réaliser stade. d'accord parce que ñun souvent sax même boo réaliser stade. da ngay demander eh, da ngay dañuy wax ban stade nga réalisé nga bindil nga nga nga bindil eh, koo ko réalisé est-ce que ki ko réalisé am na attestation bu mu la délivrer pour ni que stade bi baax parce que tabax tam noonu la. Mhm. doo ñëw rek nga ne tabax naa stade nii ñun la foo ko tabaxee nga ne fii laa ko tabax koo ko tabaxal ñu nu ko naan kii laa jiw ko defal kii laa ko réew mi laa ko defal. est-ce que réew mi dinañ ko tabaxal est-ce que ça cher na ko réew mi nag daf lay dina kayit ou bien service boobu ou bien ministère boobu dana def kayit ni ah diw de moo ngi defar suuf kat bi mais ngàcce gàllam. mais tey jii monsieur Sakho est-ce que du le fait que li nga gañewul marché bi. moo tax parce que dégg naa nga wax donc ça veut dire que lu wóor ci euh, ki gañe marché bi ba tey amul. loolu mois de décembre loolu mooy si gannaaw pour man. Hmm. man alerte laay donc kon daal yéen da ngeen jottu ne rapport bi nga xam ne njiitu réew mi moom la sàkku ci ministre bi boo moyul dinañ ko jox li nga xam ne amu fi. voilà c'est-à-dire ko lépp pour que façon yi parce que rapport bi du wax loolu. kon kon ñun dafa am lu ñu xamul ci stade yi. parce que yow expérience Demba Diop nga am certes mais tey jii boo doon xayma oh, expert nga en la matière euh, du ñàkk am nga tamit ay information ci yeneen stades yi parce que projet réfection euh, bëri na ay yi nga xam ne concerné na ko fii ci Sénégal euh, ndax li ni mel moo am tamit ci yeneen stades yi en tout cas en tout cas comme ñii defar Demba Diop nii li ñuy defare bu ñu defaree Demba Diop comme ni ñu yeneen stades yi defar comme ni ñu Demba Diop du hmm. parce que stade dafa am ay normes il faut nga def il faut nga il faut def maîtrise d'œuvre mhm. conception bi. léegi doo gàllankoor bi. ndax yéen boole nañ leen ci projet rapport bi ndax yéen boole nañ leen ci waxtaan yu. non non boole non non yëgu ma yëguñu ko fenn daal man sax dama yëgu ni que dañuy dama dégg nekk président ci conseil des ministres bi dañ ko defal euh, dañ koy defal rapport. Mm-hmm. alors bi ma jëlee renseignement au niveau du. Mm-hmm. ñoom ne nañu du conseil présidentiel parce que on les a pas avertis ñu ni rapport li ñu demandé. d'accord ma ne ko nag il faut alerter parce que rapport rek doyul. d'accord yow rapport rek doyul donc boo sañoon ñu amal lan ban ndaje. ñu def conseil présidentiel. te ci conseil présidentiel bi lépp dina leer ci yow. voilà voilà su ñëwee. Euh, tout nekk du nekk du nekk polémique wax suñu xalaat mais mais mais xaalis gi ñuy wax ne yëpp dañ ko injecté tey jii nga ne ñu euh, jaarul yoon maanaam euh, li nga xam ne mooy réflexion yi ni mu waroon jaare yoon loolu tamit lan lañ ci mën a jàng. kooku rapport rek moo ko mën a joxe. c'est-à-dire bu ñu joxee mooy rapport bi mooy rapport bi ñu laaj. Ah, ministre bi wala voilà voilà rapport bi ñu demandé. il faut que mu déboucher sur un conseil présidentiel parce que rapport bi ñun bu ñu ko jotee. danañ ci jox suñu avis. d'accord di ngeen am possibilité commenter. luy dégg ñu ni dégg mais bu ñu ko bu ñu ko joxee rek rapport bi le ministre rien à voir dans ça ministre loolu la mu def sax. dina doon ko def stade minute yi ne bëgg naa stade ñu ko ah monsieur le nag voilà nii nii nii nii nii nii la. d'accord kon tey bu ma la déggee dafa mel ni décision bi autorité sport yi jël ci wàllum homologation stade fii ci Sénégal bettu la. non bettu ma. parce que c'est sûr que ils n'ont pas bi ñuy bi ñuy concevoir yi. ils n'ont pas tenu compte des normes. ah ak Sénégal fi mu toll tey ci wàllum. Ah, euh, sport eh, lu tax lu tax lu tax lu tax ñu demandé nañ ko homologué bu ñu ko bu ñu bu ñu bu ñu defoon norme yi du ñu ko homologué. pourquoi ah, defuñu ko euh, procédure bi jeexagul de ñu ngi ci. waaw mais mais c'est ça Sénégal Mauritanie on n'aurait pas interdit parce qu'ils ont respecté les les les normes en Côte d'Ivoire ils n'ont pas interdit et c'était nos concurrents à la CAF ils n'ont pas interdit. c'est ça le problème. d'accord tey jii kan la responsabilité euh, engagé ci mbir mi nga xam ne yaa ngi koy dénoncé ministère bi la ah, ah, wala ah, fédération bi. non non non c'est-à-dire le problème doo xam sax lan la doo xam parce une direction des infrastructures moo war a toppatoo les infrastructures sportives c'est-à-dire est-ce que cahier de charge bi jox nit ñi pour ñu def infrastructure yi est-ce que c'est assez corsé pour ñu am infrastructure yi ba je crois pas. kon laa kon laa reconnaître nga ne euh, maanaam main d'œuvre bi engagement chef d'entreprise bi fii responsabilité ah, engagé wul ah, parce que moom dañ koy jox ay plan rek mu mu mu tracé. voilà ñu ko waxee mu dem defar stade nii waxuñoo ko woon entreprise. bon bi entreprise bu ko bi defar Thiès xaw bi defar Thiès d'accord. waaw bi defar dafa ni. man wu ñu leen lii. dégg naa ko ci rajo yi mu wax. Mm-hmm. mu ne man kat dégg naa ma mais waxuñu ma lii. ça veut dire que waa ji li ko demandé mu dox c'était pas conforme à l'ordre. d'accord d'accord. parce que c'est ça le problème aussi. c'est pourquoi un rapport comme ça il faut que ñu commenter ko euh, wax leen pour wax leen. il est temps maintenant et puis Sénégal dafa bari ay cadres hmm. nous il faut que les bureaux d'études ici soient capables de faire ça ah mais il faut pas il faut pas trop léger hmm. parce que un stade ça reçoit du public. d'accord xam nga amoon na temps fii stade Rufisque bi am na benn poutre bu commencé di bouger foofu ba après ñu dabaataat ba dabu ko. Mm-hmm. <laughs> tu te rends compte hein Heureusement que bon, ils ont alerté à la à temps, et que les gens ont pris les précautions. Imagine toi bu ci public yëgoon ba set ci map nu ñuy def. comme bu Demba Diop électrogène bi groupe électrogène bi daw ba mu yàgg courant bi coupé. ñu xool ñu groupe bi amul carburant moom laa dégg ci rajo bi. Mm-hmm. un pays kon tey daal danga jàpp ne joueurs yi ñoom ku euh, dëggal bi ñu defoon bu yàggul ku ci mel ne ah, Sadio ak loolu euh, si seen dëgg lañ nekk dañoo gis ay anomalies yu bëri jëm ci stade yi moo tax it. mais la petite histoire le terrain était tracé par Habib Thiam. olof gi. bon pour Habib Thiam ancien premier moo doon tracé stade bi man gis naa ko plusieurs fois moo ko dem di tracé stade bi quand y avait des bu bu bu bu daan championnat athlétisme mhm. ki ki doon surveiller stade bi c'était monsieur Gomis on connaît le stade le stade était entretenu hein d'accord mais man keroog bi ñuy def suñu projet bi dem naa visiter quand j'ai visité

xam ne boo def proposition si stade da ngay ñëw d'abord xool jël ay photo seet bind ni voilà seen liñ ci gisee nii nii nii nii nii loolu bataaxal bi ñu ko génnee bi ko envoyé ministère mhm. ñun ñoo génne premier léegi ngeen génn premier ci appel d'offre bi nag c'est euh, ci leen leen écarté ah. ndax yéen matalu leen woon li ñu laajte wala. ah. ndax yéen da ngeen matalu loon li ñu laajte wala. ñoo génn premier. ah ah mais. mais bi ñu koy dépouiller man le résultat dépouillement bi ci rajo laa ko dégg RFM. compte rendu de la fédération xaw lan le le staff du monde confié à je sais après que quand on a écrit. que ki la ñu bind ni bon vraiment balaa eh, kii nangam nangam nangam mais eh, fekk lu fekk déjà eh, man dégg naa ko ci rajo te bi ñuy tijji suñu offre nekkuñu foon c'est pas sérieux ça pour une direction pour la c'est c'est c'est ça un peu pour bon ça encore c'est la fédération la fédération autant on a répondu war ñuy woo ni eh kaa den kat mu ubbi seen offre seen kanam. mais tontu nañ leen quand même après. ba non bi ñuy bi ñuy wax ne que wax na rajo bi lañ ko déggee ci la ñuy a envoyé. non non ils nous ont ils nous ont dit que non que ñoom waruñu waruñu woon wax loolu. ñun waruñu fekk ouverture des parce que projet bi euh, FIFA moo koy moo koy euh, moo koy financé. Mhm. ñun ñoom lu leen neex lañ koy def. ma ne ko non. ma ne ko ñun on a demandé un expert de passation de marché nee na ko non la FIFA même su fekkee day financer projet projet même buy financer projet dafa war a soumettre ci exigence su procédure réew mi et puis ouverture offre jàmbur man sama offre boo koy tëjee war ko fekkee. mais ñoom li ñu teg dañ ko tënk ci euh, disposition wu décret numéro 2007 545 bu le 25 avril wala. Voilà. nii lan ah. non non non c'est-à-dire bu jëm ci code des marchés publics. Ah, ah. ci seen réponse loolu lañ leen jox quand même. voilà non non non wax déedéet waxuñu loolu. dañu ni que ils sont pas soumis au code des marchés. d'accord ok. lii de lettre baa Euh, bind naa FIFA bind nañu FIFA. Mhm. pour ñu plaindre. et lan la leen FIFA jox comme réponse FIFA bon FIFA on attend leur réponse toujours. d' accord léegi yéen tey daal seen inquiétude mooy nañu wax njiitu réew mi li fi xew li fi ne. voilà ñu mu ñu rapport bi warul nekk entre ñoom ak njiitu réew mi rek. nañ ko gën a élargir. nañ lu ah, monsieur Sakho um, Cheikh Oumar Sakho ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. nga bokk ci fédération merci beaucoup. Uh-huh, ah. des experts et conseil national des employeurs du Sénégal jërëjëf.